benn waxtu euh, toftal juróom benn simili ci télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru digg njoloor gi dina bokk ci waxtaane tey li nga xamante ne moo aju ci procès ñetti ndongo yi nga xamante ne ñoo nekk ci lycée bu Karang ci fan yi ñu génn rek ñu fusoon lool gannaaw xarala yu yees yi kenn ci ñoom doon toroxal benoomam rek ñu ne nag dinañu ubbi li nga xamante ne mooy tribunal bu enfant loolu nag duñ ko ubbil askan wi tamit bu weesuwul ñi nga xamante ne rek ñooy waa action éducative en milieu ouvert euh, daanaka procès boobu moom duñ ko yaatal leneen lu ñuy waxtaane rek aju ci procès soxna Anta Astu Soxna di soxna soose nga xamante ne dafa ñàkkoon bàkkanam ca hôpital du Sakhir euh, mbay foofee ca diwaanu Louga ñoom nag daanaka daan nañ leen non an euh, boo xamante ne rek atum euh, atum euh, kasol boo xamante ne rek fas nañu yéene tëdd rek benn weer loole nag abokaay yi boo xam ci nga xamante ne moo fa nekkal partie civile bi ak ñi ci tuumal tamit dinañ ci àddu ci biir xibaar yi le dinañ wax tamit ci beneen mbir yoo xamante ne gannaaw ñaar fukki at bañ ko liggéey léegi. Air Afrique ñoom jamono ji kilifa yi jël nañ dogal fay leen li nga xamante ne moo bokk ci seen i ndàmpaay ñu xayma ko nag ci lu toll ci ñeenti milliards ak téeméeri million ci suñu xaalis euh, nguuru Sénégal nag jël na dogal yi ñu ne nag euh, loole ñu ngi koy rafetlu ba tax rek jox nañ kàddu gi kenn ci ñoom koo xamante ne. ab liggéeykat la woon di Alioune Gaynde dina ci àddu bu baax a baax a baax ci euh, yile xibaar dinañ wax ramit lu aju ci wàllu nawet bi ñu ne nag jamono ji baykat yi ñoo ngi yëglu ñoom li ñu bëgg rek mooy ñu taxaw leen lu aju ci wàllu jiw bi ñu jox leen ko laataa rek taw bi di sóob ndax gis nañ ne jamono ji moom ñi feeti ci kaw ga soxla nañ li mel rawatina loo xamante ne rek dinañ ko dundee di ngeen am ab reportage bu yaatu ci biir xibaar yi dina bokk ci li ñuy waxtaane tamit aju ci wàllu tàggat yaram dinañ dalal ci plateau bi Cheikh Tidiane Diaw leneen li ñuy jeexali xibaar yi bokk ci li gën a fës ci yenn yi mbokk yi lii mooy li gën a fës boo leen tuuti ñu yenn. mbokk yi asalaamaaleykum ñu door li nga ko waxee woon ci ponk yi ak procès bi nga xamante ne rek du ñetti élèves yi nekk. ci lycée bu Karang ñu ne nag dinañ leen àtte rek gannaaw ab tribunal pour enfant bu ñuy taxawal ñu ne nag lu aju ci boobule euh, audience moom daanaka duñ ko yaatal maanaam duñ ko ubbil euh, askan wi. ñu xamle rek ne waa action éducative en milieu ouvert ñoom dinañ ko teewe ak itam ñoo xamante ne rek euh, ñoo moom lañ dugal ci li ni mel bokk na ki nga xamante ne moom la ñu tudd ki ko daan filmer ak ki nga xamante ne moom lañ doon sonal. ñu wax euh, ci beneen procès bu ñu fas yéene am wala sax bu ñu amal rek procureur bi moom daanaka euh, benn peine un an boo xamante ne rek dinañ tëdd un mois euh, de ferme boo xamante ne rek buñ ci noppee fas nañ yéene bàyyi leen ñu dellu seen kër yi loolu rek la procureur xamle ci jamono ji nga xamante ne rek avocat défense bi ñoom mee nañ lu ñu duppee non assistance en personne en danger. moom la ñu yëkkati ci loole dañuy teewlu euh, maître Daaf di avocat à la défense ci micro Thierno Fall. ñu génn nañu ci procès bi léegi boo leen ko seetloo bi ngeen nekkee ci biir saal bi dégg ngeen ne débat yi ni mu demee débat yi ni mu demee mooy maanaam tey bu leen xoolee ma xam ngeen ne ñun ñëpp dañoo jàppoon li ñu bëri dañoo jàppoon ne euh, ndem si yàlla ak soxna yàlla ko yàlla yërëm bi mu ñëwee ci hôpital bi kenn laalu ko ñu bëri loolu lañ jàppoon mais tey ci sage-femme gis nañ ko ñaari gynécologue gis nañ ko duggal nañ ko teg nañ ko fañ ko war a teg te ñu ko doon toppatoo donc à partir de ce moment gis ngeen euh, loolu génn na ci débat yi beneen élément bi mooy le procureur avait demandé un an d'emprisonnement d'un un mois ferme ñun nanguwuñu loolu parce que ñun dañoo jàpp ne ñoom ba ñu leen di toppee amul non assistance mooy koo xam ne da nga ko fekk muy dee laaloo ko toppatoo woo ko xooloo ko pikiiroo ko defoo ko dara loolu amul donc à partir de ce moment da ngeen comprendre ak ñun ne aussi kon li ñu leen toppee la kon loolu amul ca njëlbeen ba ca ca fin ba demandé nañ liberté provisoire le parquet opposé wu na comme ni ma ko waxee léegi ci français moom nee na 132 mooy appliqué wu code de procédure pénale ñun ñu jàpp ne flagrant euh, et suivant ñu ñooy appliqué wu le euh, liberté provisoire bi nee nañ joxante rendez-vous pour délibéré bi joxe àtte bi le 11 nañ joxante rendez-vous le 11. ñu euh, ci dossier boobu kii nag di maître Ousseynou Gaye euh, moom dafa jàpp na rek euh, sage-femme yi moom li ñu leen di tuumaal bokk na ci non assistance en personne à danger ñoom dafa mel ni ñoom seen loxo génn ci moom sax nee na den sàkku rek ci procureur ak kilifa yi ñëw suli néew bile bu ko defee ñu mën a amal autopsie bi ngir gën a am lu ci leer dañ koy teewlu ci micro Thierno Fall. parce que soo nee non assistance à personne en danger su fekkee nit ki def cee dee logique bi mooy nga continuer jël dossier bi yóbbu ko ci juge instruction mu saytu ko loolu mu deful ñun dinañ ko ko defloo parce que ñun def nañu plainte pour yóbbu euh, gynécologue bi devant le juge d'instruction def nañu plainte pour yóbbu sage-femme de yi devant le juge d'instruction pour ñu répondre du délit d'homicide def nañ plainte également contre ñoom pour délit de faux yooyu yëpp dafa nekk ci dossier bi ñëpp leer na ñi fekkee ñi fekkee ñi fekkee dossier bi yëpp xam nañ ne lool leer na. pro juge d'instruction bi bu toogee bëgg xam kii nan lan moo ko waral mu dee. war na ko mën a exhumer yóbbu ko ñu def autopsie bi loolu mën na nekk à tout moment gis nga ne ay corps dañuy nit day dee sax mu am 30 ans ñu exhumer ko daal def autopsie bi loolu mën na nekk parce que patam patamee bi ñu def dossier bi bi ñu def corps bi pour génne ko foofu loolu moo tey xel. ñu wax ci leneen gannaaw cong ba nga xamante ne rek eh, jot nañ ko nemmeeku tey te ñu amal ko fi nga xamante ne rek mooy eh, diwaanu Ziguinchor ne nag eh, am na daal ñoo xamante ne ay way fippu yu songoon ñoo xamante ne rek dañ doon tukki ci loole nag daanaka li ñu yoroon nangu nañ ko lu aju nag ci fi nga xamante ne mooy Kuntingor ak Thiendem passage yi nekkoon ci woto yi nag daanaka ay euh, ñoo xamante ne def ko tu naka sudul noonu toog yoroon rek ay moto ñoo leen braqué li ñu yoroon yëpp ci wàllu alal nag moo xam téléphone seen portable agent ak bijoux yoo xamante ne yoroon nañ ko daanaka lépp la ñu yóbbu armée bi nag nee nañ bi ñu leen waxee. bi xew-xew wàcc nañ ci terrain bi waaye fekk nañ daanaka ñi nga xamante ne ñoo doon def ñaawteef yooyu daw ba dem seen yoon. ñu dal ci euh, fii ci ndakaaru wax ci benn dossier boo xamante ne daanaka ñaar fukki at ngi nii tey ancien travailleur yi xamante ne ñoo nekkoon ci compagnie bi di Air Afrique jamono ji nag ñu ngi xaarandi rek koppar bi nga xamante ne nguuru Sénégal ñu ngi koy yëgle tollu ci ñeenti milliards ak euh, téeméer ci suñu xaalis ñu fas leen ko dàmpe loolu nag nee nañ ñu ngi koy rafetlu donte ñu ngi xaarandi leneen loo xamante ne rek dina leen may li nga xamante ne jot nañ ko dund mu gën a yomb ci ñoom ci loolee sax dañuy teewlu Aliou Gaynde moom ancien travailleur la Abdou Diouf Diagne moo taataan ay kàddu. mun gaynde tey jii mu ngi ci retraite moom mi la nag la génn lu tolloo ko ñaar fukki at ak juróom-benn ci compagnie bi ñu duppee woon Air Afrique daataa naka ñu koy tas ci atuma 2002 tey jii nag muy bég lool ci ñeenti milliards ak téeméeri millions yi mu dégg ne njiitu réew mi daf leen koy jox nag ngir ndàmpaay dafa am ay loi yu ne compagnie suñ ko tëjee walla société suñ ko tëjee ña fa doon liggéey dafa am ay àq ak yelleef yu ñu leen war a jox pour ñu mën a dem c'est bien calculé mode de calcul yëpp c'est fait donc ah rafetlu ko lañ mën a kii wax nañ ko wax ko wax ko waxaat ko ba démb mu waxaat ko mardi bi passé ah mu ne dans une semaine dinañu fay ñu ngi xaar. kii nekkoon chef de cabine jàpp na ne nag at yi yépp ñu toog di xaar wuruñu ko woon a toog bu ñu xoolee nag lépp li nga xam ne mooy alal te Air Afrique bàyyi woon ko fii. Air Afrique gisoon ñëpp xamoon nañ immeuble Air Afrique bi nekk fii ñaata milliards la mën a jar ay 3 milliards et ko jaay Point E amoon dafa ay kër ay villa loolu rek ay milliards la 12 centre industriel bu Dakar fi ñu daan réparer avion yi ay pièces détachées avion ña nga fa woon ça coûtait des dizaines de milliards centre de formation Air Afrique bi suuf sa fa nekkoon rek léegi gis nga ay hôtel ak ay kër ak yooyu la loolu rek suñ ko jaayoon mètre carré bi xam nga lu muy jar ay milliards la donc loolu yëpp suñ ko dajalee fayoon nañu fukki yoon. bokkoon ci membre navigant yi moom mi la nag mu jàpp ne liggéeykat yi ak seen i njaboot jafe-jafe yu tar nag la ñuy jànkoonteel la. lu metti ku nekk sa bopp nga xam mais dafa metti euh, kër yi tas na ñii feebar nañu dee. ñii euh, tukki nañu ñii seen doom ñu yóbboon ñu jàngi dàq nañ leen génne leen ci mbedd bi ñu nekk ay SDF kan xamatul euh, kër yi tas na lépp yàqu ci lu soxal nag Afrique am benn kër ko roppalaan guy daw ngir ñoom ñëpp Alioune Gaye di jàpp ne lu ni mel nag moom gëmu ko ndax fi mu toll nii nag réew bu nekk dangay jëm a xëcc jëme sa wet te lu ni mel nag gënul benn yoon na. Abdou Diouf Diagne bu ñu jógee foofu dañuy wax ci beneen coow rawatina bi dox diggante mairie bu Ndakaaru ak kilifa yi rawatina euh, chef de l'État ñoom nag yëkkati nañ ci ay kàddu keneen koo xam ne xam-xamam dafa màcc jëm. ci wàllu décentralisation wala collectivité locale ancien ministre bi di Aliou Sow moo nekkoon ganu info matin yëkkati ci ay kàddu rek di naan nañu saxoo lépp lu aju ci wàllu taxi bu ko defee rek lépp dina sotti dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Chérif Dia. man sama moome lañ defal loi boobu 2011 dëkk jamono ji fukki dëkk juróom laa ci defaroon man juróom-ñeent yi seen ko bala may dem bi nguur gi bees bi ñëwee mottali na lépp dëkk bi nga xam ne mooy euh, leeral naka la gox gox war a taxawoo ci wàllu ñi fay liggéeyee mooy li ñuy wax organigramme type nguur gi defee na ko ñaari at ci ginnaaw bindoon ci loi bu ci décret boobu may nañ gox goxaan yi ñaari at ñu waajal seen bopp ba méngale seen i gox ak ña fay liggéeyee ci loolu ñu jël dogal ko mu nekkoon bëgg-bëgg ñi yëngatu yëpp ci wàllu gox goxaan yi ñaari at yooyu nag mën na ay ñaari weer ci ginnaaw wala ñett ci ginnaaw kon bés ni ki tey gox goxaan bu ne waroo mën a am ñooy tag ba wala ñooy yëkkati sa gox goxaan te méngale ko ci li la yoon may ci décret boobu benn ñaareel mooy kuy jël ndaw di ko dugal sa gox-goxaan di ko fay laaj na d'abord nga am koppar yoo ko fay ba mu leer nañ nga xam ne pay go moom du manqué benn yoon ñaareel ba aussi laaj na euh, ñi gox-goxaan bi mooy conseil ba ku la gëkkool ëmb te war laa station maire bi ngay jëfee nga waxtaan ceeg ñoom ndawal buur sayt ko nangu loola nga daal di tànn ñooñu indi leen ba pare jox leen ay cër yu méngóog li nga xam ne mooy li yoon santaane boo ko deful tamit ndawal buur mën na koo mën na ci teg loxo boo ko deful ka war a fay koppar yi mën naa bañ a fay loola te bu boobaa aussi cooway bëri pëndee bëri rek mais li nga bëgg doo ko am di ñuy xuloo di xiiroo di ŋaayoo bu loolu continuer nguur am na sañ bu day ne bu la santee lu yoon euh, laaj ci gox-goxaan defuloo ko mu baamtuwaat la ko defuloo la ko euh, mu santaal la ko ci lu firnde yu soxla ab diir boo ko defee defal ko mun na ci sukkandiku daal di la dàq. mu mel ni nawetu atum ren ji ay bés yu néew moo ci des loole sax waa météo xamle na ko bu ne boo muyul atum ren ji dina teel lool ba tax na rek ñu ngi sàkku ci baykat yi ñu jël seen matuwaay ñooñu tamit ñu ngi sàkku ci kilifa yi lu aju ci wàllu jiw gi ñu def seen kem kàttan ngir fex ko joxe ndax nee nañ lu bëggee mooy ñu joxe ko ci weer bi bu ko defee rek tardé moom kenn du ko nemmeeku bopp ñoo ñu toogal ca diwaanu Ndukumaan njàqare tàmbalee xar kanamu baykat yi fii de ci diwaan Ndukumaan ndax gis nañu ne nawet tàmbali na xeeñ waaye lu xeetoog jiw ak engrais moom gisaguñ ko Ali Diaw moo jiite coopérative yi fool jiw nekk ci réewum Sénégal. parce que njaaxare bi ñu ci am mooy dafa mel ni heure bii ñu toll Sénégal waxtu législative yi lañ gën a fulaal te nawet bi jot na parce que bu ñu nee ba mai wala 4 mais te ba léegi clair yi doon génne def mi sans place semence yi kenn jotagul te si engrais bi dara ñëwagul si waxaguñ fan lañ ci toll loolu lu doy tiitaange la xam nga daaw saako engrais bi dem jar ñetti junne ak ñeent téeméer fu ni nii fi ñu toll nii nii engrais bi am mu ngi jar saako ñetti junne. secrétaire général des paysans du bassin arachidier Cheikh Tidiane Cissé jàpp ne urée bi moom njëg dafa tàmbalee yokk. parce que urée fi nekk nii boo xoolee état bu ñu cinquante pour cent bu ko subventionné cinquante pour cent mu ngi jar dix huit mille. 750 euh, boo ko boolantee dégg nga maam saako bi mu ngi jar 37500 donc loolu baykatu gerte mbala baykatu kii munu koo jëriñ buy spéculation bi nga xam ne euh, soble yooyu ñooñu mun a leen di arranger mais ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si jéeri bi yooyu du ñu arranger donc je pense que ne cette année ci état fu war a teg tànkam mooy génne gerte gu bëri gerte gu baax dégg nga maam ñu teg ko ci euh, loxoy baykat yi dégg nga de surveiller engrais bi aussi ba nga xam ne ëllëg si biir engrais bi dana dem ci loxo yi war bu boobaa dégg nga maam ñu mën a am gerte gu nga xam ne dana nekk record parce que crise bi métti na métti gu nga xam ne. kon semence bi ne ñu ngi ñaan mu taxaw ci mais intrant yi ñu bi lépp nekk sur place. surtout parce que mbay mi ren euh, bu yàlla daful rek euh, li gën vraiment dana metti parce que crise bi fi mu nekk nii mondial bi métti na fu métti baykat béykat Ndoukoumane nag di sàkku ci nguur gi fàggandiku ci engrais ak jiwu. rawatina dund ndax liy xeeñ nii de bu ñu teel ci jóg dina métti lool ci baykat yi Oumar Ndiaye waa Pakaaw moom leneen li leen gën a yitteel jamono ji mooy nees def ngir fexe ba ndaw yi jaarale ci li nga xamante ne mooy tukki bu jaarul yoon ñu mën ko bàyyandi ñu ne nag donte kilifa yi jaarale ko ci état bi ñu ngi def kem kàttan jaarale ko itam ci ay projet ngir téye ndaw yooyu fexe tamit bu ñu am ci lu ñu jàpp waaye nag seetlu bi mooy saa su nekk dinañ gis ay ndaw yoo xamante ne li leen gën a yitteel jamono ji. mooy dem biti réew moo ne day lu aju ci wàllu riziculture ak li ni mel mën na tax ñu am ci lu ñu jàpp Bakary Konté ak Khali Diamé ñoo ñuy jàngalal li nga xamante ne moo bàyyeekoo ci boobu la initiative. malgré structure financière yi ni ñu bëre fii ci Sénégal pour accompagner ndaw yi immigration clandestine ba léegi dafa am doole loolu fii ci doonu Pakao mouvement NAPA daal di door benn tournée pour sensibiliser ndaw yi. woon xale yi mën ngeen toog fii ngeen tekki fii bañ a immigré ju parce que ñu fiy jógee yëpp di immigré si ay tool lañ jëm ay tool lañ fi baay ñu fiy jógee yëpp tool yi ñuy fay dem ndox lañ fo ndox lañ fa fekk pour que ñu mun a am euh, seen njëriñ suuf soosu am nañ ndox moo tax ñu ngi lancé. ministre de l' agriculture bi may nuyu vraiment si liggéey bu rafet bi mu nekk di def si agriculture pour que fii mu mun ñu fi indi Sodaagri mu jël vraiment rizière bi jigéen mun fi liggéey daaw région Sédhiou kese li mu produit motoon na 20 milliards waaye doo ko gis parce que amul encadrement amul formation. te xaalis boobu fii la des mais ni ñu koy def jënd ko ceeb eh, garde ko si kër loolu moo ñuy xaw a sonal. barrage antisel bu Diopkounda Maka ñi koy woowee barrage Cheikh Aliou Souané dafa yàqu loolu ñu bëgg nag ñi defar ko pour nag askan bi mun fi béy at lépp. pont bi wax dëgg yàlla si sant ñu ko taxawal doomu ñoo ko taxawal muy Cheikh eh, eh, Aliou Souané nga xamante moo ci defoon dërëmam ba mu taxaw donc tey jii ni kooku bu ko mënee état lu ko raw ko mën a dem. ndaw nag ñu bëgg ñi daal indi courant ci gox xamante ne léegi am ñu électricité. courant bi branché nañ ko waaye bëgg nañ vraiment mu dugg si kër yi et àll bi nga xamante ne mu ngi am ay zone de yoo xamante ne développement yu potentiel yu fi nekk ñu mën a fexe courant bi yegg foofu. muy mel ni Saame Kanta bu Simala ba ci biir si zone yu bëri ba léegi ñoom amagul benn politique boo xamante ne dina fa yóbbu électrification amuñu eh, courant amuñu ndox. loolu moom joytu la bi ñu koy def ndaw yi nag dine dinañu wéyal sensibilisation bi ci commune yi yëpp nekk fii ci région bi Sédhiou pour nag éliminer ndóol fii ci diwaanu Pakao bu ñu jógee diwaanu Pakao dañuy doxantu dem ba ca diwaanu Saalum foofee nag ñu ne waa Kaolack ñoom am nañ ab commissaire de police bu yees tey sax lañ ko daan dalal rek foofee ñu ne nag directeur de la sécurité publique àdduna ci li mel jekkit ci ay kàddu ñu ne nag askanu euh, Kaolack moom na seen xel dal ndax ku mën liggéey lañ leen indil leneen lu ñuy sàkku ci askan wi maanaam ñu gunge ko ci liggéey bi collaboré bu baax bu ko defee mission bi nga xamante ne moom lañ ko sant mu matal ko ba mu mat sëkk Pape mbay Diaw ak euh, Faly Gueye ñoo ñu toogal diwaanu saalam ba daal di nañ koy installé mu doon commissaire police centrale bu Kaolack ci ndaje moom nag Aliou Ba di xam ne ne xam na bu baax li koy xaar ba tax mi ngi woo population bi ñu daal di collaborer ak ñi nga xamante ni moo di ay service am. et je dis à mes à mes euh, pour. di wax ñi nga xamante ni ñoom laa seef ne ñëw ma fi rek ngir def commandement yoo xamante ni yu yàgg la damaa ñëw rek ngir ngeen mën a bénéficier wu ci sama expérience ngir ñu liggéey su ko defee ñu aar askan wi. di wax tamit askan woowu ne liggéey bi pour mu yomb ñoom it il faut que ñu jàpp ci ndaxte kaaraange gi ñun ñëpp la war a soxal. je vous tends mes bras pour qu'on puisse travailler ensemble parce que nous sommes des frères siamois personne ne peut aller sans l'autre. nag doon benn zone carrefour ba tax Ibrahima Diop nekk directeur de la sécurité publique di xamle ne nguur gi xam na bu baax li nga xamante ni moo nekk Kaolack ba tax tamit muy dalal xelu askan wi tey rafetlu liggéey bi nga xamante nii ñi nga xam ne ñoo yoru kaaraange gi ñu ngi koy def fii ci Kaolack. Kaolack est une ville stratégique c'est une ville politique. c'est une ville religieuse c'est un carrefour. Kaolack nag zone carrefour la dëkk la boo xamante ni ñi fi ñëw bari na lool ba tax ñun xam nañ bu baax li nga xamante ni moo fi nekk di dalal xelu askan wi rek ne ñoom su yóbboo seen xel dal ndax liñ fi indil mën na noo compter ci expérience am pour liñ bëgg ñu mën koo am di rafetlu tamit liggéey bi nga xamante ni service yi fi nekk yëpp ñu ngi koy def. entre l'administration territoriale le parquet. la police nationale. ki nga xamante ni nag moo nekkaan commissaire fii ci Kaolack di Balla Kébé Parcelles Assainies la jëm ngir rek toog ca bopp commissariat ba. wax ci wàllu cinéma ak taxawaay bu bees bi nga xamante ne association bi ëmb cinéaste sénégalais ak association associé am nañu ko ñoom dañu bëgg rek lépp loo xamante ne moo aju ci wàllu projet wala lu ñuy nas ak nocci ñu boole leen ci ñoom nag dañu njorte ne rek cinéma moom développement mënuñ ko wax benn yoon te boole wuñ ci acteurs yi ba tax jamono ji lu waaju itam ci wàllu foppikaan ñu koy séddalee bëgg nañ ci am seeni xalaat dañu teewlu Moussa Touré mooy président bu association des cinéastes sénégalais et associés euh, ñu teewlu ay kàddu. ñu demander tout demandes c'est parce que dafa c'est obligé tu ba pas faire mun loo def commission di joxe xaalis ba pare ñun boolewuloo ci mun loo jël ay nit def leen ci commission ba pare demandé wu leen ñan ak ñan ñoo fa war a nekk mun loo aussi depuis 2017 nga def appel d'offre ba tey day continuer di joxe xaalis te chaque année ñu jox ñu un milliard. ngay continuer di joxe xaalis sans commission. te kenn xamul fan lay xaalis bi dem su la neex nga ciy def. lu la neex lu neex ku mu neex nga jënd ci même ay instrument de musique dañ ko jënd man dem naa gis ay instrument de musique yi nga xam ne bokkul suñu cinéma. donc donc du lu ñuy laaj mooy lenn mooy li ñu moom ñu jël ko bokk ci loolu la ñuy laaj ñun ñoo war a décider fan lay dem ak fu muy dul dem. ku mu neex nga jël sa bagage dem ci festival ku ñëw ñu jox la sans pour autant nga jaar ci commission loolu tamit ñun loolu la ñuy demandé dañuy demandé foofu ñun ñoo ko moom ñun loo ci war a wax dañuy manifester dañuy manifester man mosu gisu gisuguma nag dans l'histoire du cinéma ay cinéaste di manifester ça va être la première fois ñuy manifester dañuy manifester man de musuma manifester depuis bu ma bu ma nekkee ci cinéma bi maintenant ça fait 45 ans xaw ma ah Mansour man musuma manifester donc on va mënuñu jël suñu xaalis di ko di ko bazarder comme on veut sans pour autant ñu wax ak ñun c'est pas possible am naa ay nit yu nga xam ne depuis 2017 mënuñu def film te kat am nañu résultat mënuñu leen jox xaalis mais loolu nan la mun demee te kat ay cinéastes yu éminents yi parce que xam nga cinéma dafay am ay xale am ay mag gis nga dañuy cinéma dañuy respecté mag yi foo dem boo demee festival de Cannes bi nar a am ay mag nga fay fekk Euh, Rodolphe Clément Gomis ñu gën ko xam ci Rudy Gomis bokkoon rek ci orchestra Baobab moom nag jébal nañ ko borom fi nga xamante ne mooy cimetière mix bu ba ci teewaayu mbooloo bu takku loole nag may na ay jege ñaaleem ñu ñëwaat ci taxawaay bi nga xamante ne euh, kookee di Rudy Gomis amoon na ko diggante ay mbokkam ak itam musiciens yi nga xamante ne. ñu ko doon amal dañuy teewlu Antoine de Padoue moom mbokkam la ci micro Boubacar Diassi. wax yaatu laa biir bëgg nit bëgg mbokk. mu nekk nit koo xam ne uuf na ñëpp xam nga ñëpp njaboot ñëpp la uuf nit la boo xam ne da ngay toog nii dem si mbooloo nii di nga ree ba doo mën. bon naqar xanaa xam nga nit koo xam ne ngeen yàgg nekk partagé lépp moment yu difficile yu yàggul bu ñu suulee suñu yaay xam nga rassembleur la musa doon musul bëgg ñu disperser. lu mu am préféré na ko mu joxee ko si moom mu toog ànd naa ak moom ñu doon dem mu jóge voyage mu waroon dem fay facture ndox. ndoxam bu mu ñëwee mu tombé ñuy expulsé benn famille fa jël lu mu yoroon ci poosam yëpp mu ne huissier bi woo ko versé ko ko ne ko soo buggee ñu dem léegi suma kër ma complété li des nga bañ a expulsé famille bi. ñun bi ñuy juddu ñoom lañu fekk te man naa la ne man ci Ridi Gomis laa féete parce que daanaka man samam xaru ngénte sax Ridi Gomis ma ko jënd. kon sama papa la di papa goo xam ne gu ma yëg vraiment nit ku baax boo demee këram mënoo ràññee doomam yi ak ñu mu jurul. donc euh, messe boobee ñu ngi ko amaloon ci église Saint Antoine de Padoue mu mel ni yegg si nañ ci euh, Cheikh Tidiane sport wala tàggat yaram gannaaw bàkk bi lay doon. jamono ji xel yëpp nga diwaanu Bawol Njaareem wala sax Jurbel foofe lañ fas yéene amal li nga xamante ne mooy drapeau chef de l'État mu àjju ci wàllu làmb. ci wàllu làmp tirage au bi amal nañu ko sax démb ci poule A bi euh, Diourbel euh, Sédhiou Kolda ñoom ñoo fay nekk ci poule B bi Thiès Saint-Louis Louga. ci poule C bi Fatick Kaolack Ziguinchor Tambacounda ci poule D bi Dakar Matam Kédougou ak Kaffrine euh, yëfee nag euh, lépp jaar na ci yoon dispositif bi nga xamee ni euh, moom la ñu war a mettre en place teg nañu ko ngir rek tournoi bi mën a am ci yoon bu mucc ayib ci noonu dañ ciy teewlu xalifa Sow nekk directeur technique national bu lutte ci micro sunu confrère yu IGFM. dispositif Euh, ñuy commencé li nga xamee ni mooy euh, tey visite musicale bi ak posé bi démb la ñu ñëw ñun ndax am na équipe choc boo xamee ni dafa ñëw parce que euh, Diourbel c'est une région ba peu particulière alors donc i fallait que ñu teel a ñëw pour mettre dispositif yi moo si suba gis ngeen ni installé nañu enceinte yeeg ak yooyu loolu moo gën a am solo fi nga xame ni foofu la ñuy compétir loolu la ñu defar. actuellement léegi nga xamee ni même bu fekkee ni amul leneen mbër yi bu ñu ñëwee arbitre yi seen drapeau léegi yooyu yëpp yemb na danañu mën a commencer en attendant ñu rek li ci des léegi ci ngoon si aussi tamit gis ngeen ne teel nañu fi ñëw 15h30 pour mën a démarrer li nga xamee ni mooy visite médicale bi maanaam saytu yaramu lutteurs yi am na foo xamee ni sax peut-être bon ay formalité la parce que mbër yi ñëw di bëri si yam am nañu licence. te licence bala nga koy am da ngay am li ñu naan certificat d'aptitude à la pratique sportive donc dañ doon compétition bi nag tey lay commencé jeex dimanche te di ngeen ko mën a suivre en direct euh, fii ci euh, télé Futurs Médias ñu wax ci wàllu football ligue en sénégalaise ak 21e journée bi ci week-end bi programme bi nag ñi la tëddee jàmbaar di dalal Linguère fële ca Saly Teungueth FC Mbour Petite Côte AS Douane Casa Sport Casa Sport nga xam ni moo jiitu actuellement ci classement bi US Gorée di dalal Génération Foot nekk ñaareelu place bi CNEPS di dalal AS Pikine Ndiambour di dalal Jaraaf bi nekk ci ñetteelu place bi dak Guédiawaye Football Club di dalal Dakar Sacré-Cœur international sénégalais bi di Sadio maane euh, jagleel euh, waa Bambali euh, foofu noonu arbitre yu Sédhiou yi sax lañu doon jagleel ab lot de matériel d'équipement ak maillot yoo xam ni xayma nañ ko ci 10 millions cérémonie de remise bi nag ñu ko doon amal ca mairie bu Bambali Aliou Dabo nekk président ligue bi di ci àddu ci micro Bakary Konté ak xali Diamé cité suñu international bi Sadio Mané pour victoire bu mu def parce que lii dépassé na ñëpp parce que ñi ko précédé si football africain bi ñoom fii la ñu yoon moom ñoom dépassé na ñëpp te incha allah loolu ci kaw ci kanam rek lay dem parce que tey ñu ngi nii fii Bambali lu ñu dajal fii mooy moom Sadio Mané mu xool jafe-jafe bu football région de Sédhiou am. mu naan ma président dama bëgg a jàppale sama football région mu naan ma lan mooy seen priorité ñu ne ko ñun suñu priorité tey tey nii dañu bëgg a moderniser suñu football bi et pour moderniser football bi il ñu am arbitrage de qualité. mu naan ñu lan ngeen bëgg ñu naan mais fokk suñu arbitrage bi nekk comme les arbitres de Thiès et de Dakar mu naan ma loolu amul problème mu naan ma lan mooy sa ma ne ko sama football jeune parce que dama bëgg yeneen a juddu si région bi loolu euh, problème ma ne ko sama championnat day démarrer mais j'ai mal souvent di ko égaler parce que Sédhiou est plein de cours d'eau Goudomp est de l'autre côté Bounkiling est loin le transport suñu ko tënk tey tey xamante nii lu ñu dajale fi Sédhiou euh, Bambali fii mooy joxe matériel bi mooy les panneaux mooy euh, euh, équipement sportif yi mais suñ ko xayma mun nañ def ni Sadio def na fi tey valeur de près de dix millions. bu dañuy dem seeti benn gardien de but boo xamee ne xam naa ni xamuloo ko mi ngi wuyoo Mansourang Gidior Fall nekk gardien de but ca Foursan Ispina ca Dubaï moom nag jokkoog nag Pape Faxañi. ak taay bi nga xam ne moom la am. tolloog un mètre quatre-vingt-huit ci kaa yi jafanu lool ngir góolu Sénégal bi nga mën a lakk caax yi. actuellement je suis le meilleur gardien de du championnat deuxième division aux Émirats arabes unis j'ai joué seize matchs sur vingt j'ai fait dix clean le championnat on m'a élu meilleur du championnat. moom mu nga nekkoon foofu ca Lusitana mu nekk club boo xam ne benn ancien bu Real Madrid di Michel Salgado moo ko moom. Lusitana fa la amee sax sélection équipe nationale U17 euh, euh, peut-être boobu Moustapha Seck ak Dominique Colli ñoom ñoo yoroon euh, équipe nationale U17 voyagé naa nationale à Qatar joué match amical contre Aspire Pa Sonko moo yoroon équipe bi ak Issa Aidara. comme gardien aussi euh, coach yu ma yoroon foofa à l'équipe nationale coach Sidat Sarr la woon ak euh, Gaspard Gomis. Massourang am expérience bu bëree bëri naam ay atam tuuti na jamono ji ay entraîneur yu mag ñoo ko yore foofu ca club ba. Émirat maa fi ñëw euh, le novembre laa dugg si biir Émirats arabes unis c'était pas facile mais après suñu borom suturaal na ma. ba ma intégré benn club vingt division voilà njëkk a joué comme championnat avant ma intégré sama club actuel yàlla boole na ma coach boo xamante ni aussi c' est une très grande légende. parce que moom moo yoroon euh, Iker Casillas à Real Madrid yoroon na aussi Thibaut Courtois jël na Ligue des champions ak Real Madrid aussi notre président du club c' est une très grande aussi ñu koy wax Michel Salgado. moom mooy euh, président club bi. ak performance yi nga xam ne moom la def ci deuxième division bu Dubaay Mansour daal la mu bëgg mooy gën yokk expérience bu baax a baax bu ko defee mu mun a dugg ci équipe nationale bu Sénégal. jërëjëf Pape Fara Gning euh, Ibou Diouf lii moo fi euh, Cheikh Tidiane laata rek ñuy dem ci li gën a fës ci yenn kaay dañu ñëwaat ci xibaar bi nga xamante ne dab nañu ci ñu naataango Aminata Goudia bi moo ñu ko baaxee niñ ko waxee woon ci ponk yi rek àtte wala procès ñetti gone yi nga xamante ne ñoom ngeen gis ci image yi noonu. ñaar ñi moom daanaka daan nañ leen euh, benn weeru juróom benn weeru kaso euh, benn boo xamante ne rek dañ koy tëdd am na tamit ndàmpaay boo xamante ne fas nañ ko yéene yëkkati jox ko ki nga xamante ne moom lañ doon fitnaal loonu mu toll ci benn un million cinq cent mille francs CFA mu aju rek ci wàllu domage et tey nag lañ doon amal li nga xamante ne mooy euh, procès boobu ci fële te diwaanu Fatick ñu ne nag audience bi moom daanaka huis clos la woon. amul kenn ku ko fekke woon ci askan bi bu mel ni e eh, si nañ ci li gën a fës ci yenn yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ñaar téeméeri kiloy cocaïne ak juróom fukk yi fi duwaanub Sénégal jàppoon l'observateur ma ca di ko lijjanti ba léegi ubbil yéenekaay bi dorog baa ngi ne ñu sol ci ay saako rangale ko ca poorum Dakar journal bi dañu fàttali ne 2019 ca la ko duwaañub Sénégal si ci géejug Sénégal gi Omar Maham Diallo doyen des juges yéenekaay bi nee nañu pare na ci instruction ba mu ci doon def ba boucler ko fukki nit ak ñett yi ñu ci doon tudd tuumaal leen ba tëye woon leen juróom-ñett ci ñoom inculpé na leen seenub der bàyyi bàyyi leen ñu dem non lieu la ñu am leneen lu ci am l'observateur nee nañu moo di parquet àndul ci dogal bi ba tax def na appel dogalub yoon beneen bu ñuy xaar ci réew mi le vrai journal nee nañu moo di bu juróom-benn sage-femme yu Louga yi ñuy tuumaal ak a toppe ak càggante ci faatu dem si yàlla asu soxna ñoom juróom-benn sage-femme yépp yéenekaay bi nee nañu ñoo nga woon démb tribunalub Louga ñu leen doon atte benn atu kaso boo xam ne benn weer ba la ñuy tëdd moom la procureur bi sàkku daan leen ko bés bi le jour nañu bésub àllarba ji di ñëw fukki fan benn ci weeru mai ci la ñuy xam li yoon ci ñoom waaye réquisitoire bi parquet bi def mooy bàyyi leen ñu dellu seeni kër yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal it ne ñoom ñeenti sage-femme yi ñu téye ci kaso bu Louga liberté provisoire bi ñu bëggoon yoon bañ na ko kumbaay bañ sàmbaay rasu li meerub Ndakaaru Barthélémy Dias tontu Macky Sall démb journal yu bari ñu xëye xëye nañu ko tey ji L'Observateur Source A Sud Quotidien Le Quotidien Tribune L'As L'Info Vox Populi ak Les Échos ñoom ñépp xëy nañu ci journal L'Info bind ci xët mu njëkk ne tontu lu ñaan ci yar ñu retiré seeni kàddu bu ñu bëggee jàmm ci nañu ne Barthélémy Dias démb ba muy conférence de presse fa mu taxaw fa la taxaw yox yoxiwul lu toll ne tarfatal ay ni nee na muy Guy Marius di capitaine Touré ci cabineem la bokk te fa la ñuy di des ba léegi dara du leen fa jële moo ko def te mbindeef amul maqaamam di ko ci génne source wa nañu li Barthélémy Dias tontu compal sàll moo di mission mission bi ko waa Ndakaaru dénk moom Barthélemy Dias gisul kenn wala dara mbaa kenn ku ma ko tee doxal ñu dox dem ci journal Les Échos fekkaat fa ay kàddoom yu muy waxee ne moom Barthélemy Dias bokkul ci ñu ñuy xupp mbaa ñi ñuy xoqatal tir bi nañu Barthélemy déclaré ne Macky Sall ab guerre nee na amul jotu caaxaan nee na it dina saisir bureau international travail ngir ñu may jàmm ñaari liggéeykatam yi di capitaine Touré ak Guy Marius Sagna Vox Populi di ñu xamal ne meerum Ndakaaru di fa en tant que rakk juy seeti magam Macky Sall matt di ëf tàngal seddal journal L'As nee nañu moom la Barthélémy Dias nekkee woon ca conférence de presse démbam nee na bras de fer bi amul woon te gagné na ko ci lu amul benn werante leeral na it ne li tax mu bëgg ab audience diggam ak moom yegge ko jafe-jafe yi waa Ndakaaru di dund waa APR yi ca Kër Massar Source mi ngi ñuy nettali seen ndajam ak Macky na mu li ngeen war a def moo di wutub seetu taxaw jàkkaarloog moom xoolaat seen bopp moo gën ngeen nekk fii di xiiroo ko ŋaayoo mel ne ay xale yu ndaw mu ne leen nit bu gàcce doon rey war ngeen a dee yéen a ngi gën di toroxal ak tuutal seen bopp ci ay coow yu amul bopp amul genn mel ni ñu nekk ci robinet mbedd sursoi dolli ñu ci ne ñoom responsable APR ci Kër Massar ma Sall nee na leen ngoonuk fanweeri fan ak benn ci weeru sulet bu ngeen xullee ba ñu duma leen na leen leer ne waxuma la ñu yàkkal leen ceebub jën waaye xooñ sax du ngeen ko laal Mamadou Mohamed Ndiaye cant ak ngërëm ñeen na la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safo bi di leen ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.